asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi di seetaan Diassigui TV ñu ngi leen di jaajëfal amati mbégte ak kontaante wàccat si terrain bi fas yéene laaj askan bi seen xalaat par rapport ak li nga xamante ni moom mooy xew jamono ji nii si Sénégal bi yëpp gis nañu jamono ji ak léegi maanaam dafa bëri ay taataa bëri tamit foo xamante ni dafa am mbënd te yaakaaroon nañ loolu maanaam euh, jeexoon na fi waaye gis nañu jamono yi amaat na ñu fas yéene laaj askan bi ñoom nag seen jàng seen xalaat ak seen jàngat si li nga xamante ni moom mooy xew jamono ji sëñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay yaa ngi si jàmm sant yàlla rek euh, taataa bi nga xamante ne nii ak mbënd bi nga xamante ne amaat na si dëkk bii yow ban jàngat nga xam donte Macky Sall décaissé woon na 700 750 milliards pour xeex li nga xamante ne moom mooy maanaam inondation yi tey ñu gisaat ko ban jàngat nga si am. waaw ah, ni mu jox xaalis bi ñoo ko ceebu jënal seen kër rek yor xaalis bi di war ko def si dëkk bi defuñu ko si dëkk bi nii na lee ko seen ceebu kër rek. loolu laa gisit mais lii boo gisee état bi Macky Sall moo ngi liggéey mais ñi topp si ginnaaw Macky Sall kenn liggéeyul. mu ñu leen jox xaalis ñu war a defar dëkk bi defaruñ ko booy dimbali da ngay dimbali askan bi si loolu leen jafe-jafe mais du jël benn saako ceeb jox leen ñu lay tàccu ne yaa fi ne. jàngat bi ma ciy njëkk a gis mooy nax sénégalais yi quoi parce que am na loo xamante ni mag boo xoolee politique am ba muy tàmbale politique am moom mu ngi doon politique politique gu mbënd mi ci la bokkoon kon buñ demaatee ba gis fi lii tamit dañ naan ay ay ay naxee la quoi parce que yii Sénégal war na ko dépassé parce que toll nañ moment bi nga xamante ni Sénégal waruñu woon nekk fii sax di jooy ay mbënd ay ndox di jël ay këru jàmbur xam nga am am am na yoo xam ne daal dépassé nañ ko quoi ñun pour man. ñun de boobu ba tey yaakaar naa ni Grand Médine amaguñu solution boobu ba tey dañu sonn parce que fii day taa kër yi di taa kër yi bu ko defee mbedd bi yëpp taa doo am foo jaar man nee naa ni Grand Médine amul maire parce que suñu maire bi gisaguñu lu mu fi defagum. parce que baki démba fii dafa taw mu taa am kër yu daanu mais ba tey euh, gisaguñu maire bi. vraiment situation Sénégal man doon na loo xamante ne jaaxal na ma trop ndax depuis euh, démb maa ngi seetaan benn vidéo boo xamante ne Macky Sall moo ko defoon depuis 2012 quoi mu ne xaw am na xaw ma ñaata milliards la waxoon sax. 750 milliards boo xamante ne mu ngi ko financé si affaire mbënd mi te vraiment 750 milliards bu mu noonu pour man kenn gisul foo xamante ne dugal nañ ko foofu ndax boo xoolee zone bi nga xamante ne fii la ñu nekk muy zone Grand Médine. vraiment bi ma fi nekkee ba léegi ça fait des années situation bi ñuy souffrir nii mësul changé chaque année ñu ñëw jéem a defar na jéem a defar baara tali bi 3 mois 6 mois yoo xamante ne dañ koy baar tali bi ñu ne dañuy defar bu demee ba nawet ñëwaat même chose lay doon ko bu ñëwee ñu naan ñu ngi liggéey te seen liggéey kenn du ko kenn kenn du wër ba gis ko daal. jamono jii nii est que Sénégal fu mu toll nii war nañ mën a dund situation yu mel nii ay mbënd. waaw situation bi pour man euh, bii waroon na jeex bu yàgg. ndax boo xoolee 750 milliards boo xamante ne état bi moom la wax moom la moom la financé ci affaire mbënn mi xaj ci biir Sénégal rawatina Séné euh, Grand Médine bi nga xamante ni gox bu ndaw la situation bi pour man waroon na jeex fii bu yàgg ndax 750 milliards du xaas boo xamante ne xaas bu ndaw la quoi. non ñu mun a dund li parce que suñ njiit yi ñoo liggéeyu rek moo tax ñu dund lu métti li no bu baax bu baax a baax Sénégal fu mu toll nii waroon na dépassé fii parce que li ñuy ci richesse su Sénégal yëpp Sénégal toll fii tamit amul sens ana sens bi. laaj laaj ko ñu nekk ci pouvoir bi ndax dinañ la ci wax dara. man na franchement nee naa ni Grand Médine gisaguñu sunu bopp daal en tout cas gisaguñu suñu bopp parce que duñu gis ku ñu dimbali dañuy sonn jeunes yi no fi nekk di dimbali nit ñi mais mais sax duñ ko fi gis en tout cas sonn nañu torop bëggoon nañu tamit ku ñu jàppale. sa kàddu bu mujj. sa kàddu bu mujj. ah sama kàddu bu mujj mooy Macky Sall nañu jàppale bu baax a baax parce que xam ni Grand Médine sonn nañu torop torop franchement. jaajëf. merci